برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل تيجان جخن نينان أقرب أحد النبي عليه الصلاة والسلام توين نيوكو daanaka génne ko nangu ay alalam nangu alali ay sahabaam mu ne jullit ñi ne ko tee ñu fayu mu ne yàlla digalaguma fayu mu nekk ca noona ba yàlla ne ko am na ñu ñëwoon ci yow jàpp diine ci bayatul aqaba al ula al aqaba saniya ña nga léegi gàddaayal dem foofa ab woote fa muy màggee nga koy yóbbu waaye fi muy gottee koo doo ko fi yóbbu fii ñoom feeg ñii ñu ngi fii duñ gëm yàlla abu jahl ibnu hisham abu sufyaan ibnu xarbin utbatu ibnu rabiatu cheybatu ibnu rabiatu walid ibnu utbatu walid ibnu muxirata uqbata ibnu abi muitin ak abu lahab abdul uzza kàngam yii feeg ñu ngi ci quraysh sa bu wootee du jëm ca kanam ndax keroog ba nga leen wooyee ca Kaaba ga ne leen ndax su ma waxoon ne ab xare gi ñëw di toj si màkk da ngeen ma gëm ngeen ne waaw ma ne yàlla ma yónni ci yéen lan ngeen lan ngeen lañ ko ca tegal ajaalal alihata ilahan wahidan ah yàlla yi niñ bëree fii mu bëgg ko def benn yàlla lii de mbir mu yéemu la lool ngeen ko ca tegaloon ba bàyyam ne ko tabban laka alihada daawtana kon nag woote bi du baax fii génnal loolu moo tax mu gàddaay is yamkuru bika alladina kafaru li yusbituuka aw yuqtiluuka ila axirihi loolu naka mu xalsee ñëw loolu la buur bi nar a nettali mu gàddaay dem Madina at mu njëkk ma ba mu demee mu jënd terrain bi nga xam ne foofa la jàkkam ja nekk këram nga mu jënd ko tabax jàkk ja ci déwén sa nag alquran wàcce ne ko na nga xeex قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة أذن للذين يقاتلون في سبيل الله بأنهم ظلموا ay yu bari nag wàcc ci xeex ne ko léegi nag fayu jot na alaxdu bi saari na nga fayu fayu jot na yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu ma waral caatam ñaareel ma ca gàddaay ga ci la def xare badar badar tudde nañ ko badar ndax ab teen la ki gasoon teen ba ca dëkk ba kooku moo tuddoon badar badar xeex la boo xam ne ci la jullit ñi am kàttan ci kaw yéefér ya ci la force jullit ñi njëkk gañe eh, doole yéefér yi ci chebur jaziril arabia loolu moo di xare badar xare la boo xam ne yàlla dimbali na ci ab yónintaam te fekk sax ñoom booba ñu tuuti lañu woon yàlla ngi ko ciy ñaax wala qad nasarakum allahu bi badrin wa antum adilla dimbali naa leen ci badar te booba yéen boobu bariwu leen woon xare la boo xam ne yàlla wàccee na ci junney malaaka dimbale jullit ñi wala yàlla wàccee na ci ñetti junney malaaka yàlla wàccee na ci juróomi junney malaaka lépp alquran indi na ko bi alfin min al malaayika salaasati alaafin min al malaayika bi xamsati alaafin min al malaayika xare la boo xam ne yàlla moo doon jàngal malaaka ya naan la ñuy xaree naan leen su ngeen demee fadribu fawqa al anaaq nim xal say ñëw ci suratul anfal bu neexee yàlla wadribu minhum kulla banaan di leen dóor ci doq yi ndax ku sa baat dëgg moom dootoo fa nekk di leen dóor ci loxo yi bu loxo dëggee borom du mën a mën a yoreeti ngànnaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla ne ko dig naa la nag ihda taifatayni kenn ci ñaari kuré yi muy njëgg mi ak ndog mi jullit ñi nag booba ñu ngi yaakaaroon ne njëgg mi moo baax ndax moom mooy xeyra daa ci shawka mooy li nga xam ne amuti ngànnaay amut ak dég ñu ne moo gën waaye fekk ndekee borom ngànnaay yee gën yonent bi alayhi salaam ba ko yàlla digee mu ne kon nag Quraysh fii la ñuy jaar di jéggi dootuma nangu nag ñuy jaar fii di jéggi lu may ma dogale leen léegi mu am njëg mu mag moo xam ne Abu Sufyaan mooy ki nga xam ne moo jiite njëg ma Quraysh nag seen alal ji yépp yépp lañu am ci xaalis lañu am ci wurus lañu am ci libaanu zakar al ahjaarul karima al aqiqa yépp def nañ ko ca pour jaayi ko jëndee ko ab dund ñëw euh, coopérative bi jaay nit ñi nag dëkk bi am luñ lekk ba ñuy wàññeeku yàlla xamal yonent am bi ne dañuy wàññeeku yonent bi ànd ak Babacar ñu génn jaar ca as ndëkk sa tuuti soo xam ne dañuy teggi Madina di fa jaar bu ñu wàññeekoo mu ñëw taxaw ca teen ba dégg benn jigéen a nga naan ku may lebal xaalis bu suba bu fi njëgam Quraysh mi jaaree suba lay agsi ndax ñi nga fanaan bi sànga dëkk sàngam suba lañ fi yendu si maroot jaay ndox fay la mu daal di ne Babacar dégg nga mu ne waaw mu ne nañ dem suba la ñuy ñëw ñu daal di ñibbi baabu Abu Sufyaan ñëwee daal di yendal foofale ne waa dëkk bii ah fii day jege na Yasriba ndax da ngeen di dégg xibaaru Yasriba ñu ne déeréet ñu ne déggun ci dara mu ne xamu leen ci dara ñu ne déeréet benn jigéen ne ko am na ñaar ñu mën a war gilam ñu taxaw file démb waxuñoo kenn dañoo taxaw ba yàgg rek ñu dem abu sufyaan ñëw foofale fekk gëlëm gaa ngi fa neefare mu jël euh, neefare ba dal di ko xar fekk ci ma ne lii waa ma madina la ñoom dañoo bari ma seen gëlëm sax ma lay lekk haza alay faali yasriba kuréem xel mu daal ne léegi kon damay yónnee ci abu jaal wax ko ne ko nañ gaaw euh, do dogaale suñu euh, dimbale ñu ndax ñu mën a raw sinon jege nañu yonent bi te kon léegi tey mu dogale ñu te xam naa ne moom bu ñu dogalee ba nangu alal ji proche danañu xiif bay lekk ay xaj mu daldi di ne daal di benn na amru muy abu dem dam mu alxifaar yi am amir abu dam-dam alxifaar mu ne ko loolu maa ko yelloo boobu mission maa ko mën a doxi mu ne ko nekkal sama ambassadeur kooku daw dem Makka jiitu leen ba mu jubloo dëkk ba dagg ñaari noppam tere deret yi sotteeku ci ay waggam mu caw boppam ba yaram wi yépp am ay xotteeku xotteeku mu dugg kaaba ga daal di yuuxu xam naa ko man ndaw la daal di yuuxu naan waa saba Quraysh cuuyu naa leen cuuyu naa leen ñëw leen ñëw leen ñëw ñu ne lu xew lu xew ñu ne abu dam damul xifaari la moom day dafa àndoon ak abu sufiyaan ñu jéggi kon day jàmm xewut jàmm xewut ñépp daje nekk lan la mu ne yow mi nga xam ne yaay buur bi yaay sangu xur wi yow abu jaal ibnu hisham amru ibnu hisham na nga yëg ne yonente bi ko tuddee abu jaal bàyyi ñu réer waaye amru ibnu hisham la tudd mu ne ko abu sufyaan nee na soo mu muhammad dana ko rey moom ñam àndal nangu njëgg ma nangu alal ja te kon quraish danañu xiif bay lekk ay weteñ danañu xiif bay lekk ay xaj mu daal di ne kon xare sama digg ak moom kon taxaw na ay caana jàmbaar yi jóg leen gaa yi ñëw ñu tëgg jaasi yi ñii defarlu ku nekk daggi sa jaasi daggi seeni xeej ak seeni fett waajal nañ xare bu bu baax a baax ci alal alal ju bari ñu cotiser ko génne ay gëlëm yu ñuy rey ak yu ñu ratt ci yoon weer yépp nag Walid nag moom narutoon a dem sax Walid narutoon a dem waaye Abu Jahl moo leen ñaax ñoom ñépp ñëw ne ko ah góor ñaa ngi xare ji yow mu ne man sama boppay metti mu ne dee wallaay jigéen nga rek kon libaanu zakara ngi cuuraay ngi nii nga cu nga suuru te fuddanu comme jigéen ñi rek ndax góor yi ñoom ñi ngi xare mu ne ko kacc nga de xam nga ne man du ma jigéen de man du ma ragal du ma yaafus daal di jóg nag daal di ànd ca xare ba ndax ca la nara de génn nañ ci njunney doomu aadama ñëpp ngi war ay fas ak i amee ay gunt gunt moo di épée xeej bu tol ni gopp ñoom ñoom ñu ngi yoree gunt yooyu le ñu yore ay fett ñu yore ay jaasi ñoom nañ génn nañ ci lim boobule yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu génn ci ñetti téeméeri góor ak fukk ak ñetti góor juróom-ñaar fukk rek ñoo ca war ñu ca des yépp dañuy dox juróom-ñaar fukk gëlam lañu amoon ak juróomi fas am ñu am jaasi am ñoo xam ne amuñu jaasi am na xam ne dañoo yalang loxoy neen la ñenn ñi amuñu yobbal te ci weeru koor la fukki fan ak juróom-ñaar la woon ci weeru koor am na ñoo xam ne dañoo woor doguñ seen koor noonu la génnee ba mu ñëwee ba badar ñu wàcc Safwaan ne ko ndax fi nga wàcc moom tig-tagu xare la walla yàlla la ko digal bu yàlla bu la fekkee yàlla la ko digal sama yoon nekku ci buy nag pexe rek pour xale fii du wàccuwaay mu ne ah yàlla digalu ma ko de pexe rek la mu ne ko du fii nan wàcce ca ndox ma ca teen ba ñu dem wàcce ca teenu badar ba dal di ko wër root nda naan naan sangu nandal gëlëm yi duy mbuusi ndox yi jël ay xeer fatt teen ba ndax Quraysh buñ maree benn teen rek fi am ñoom du naanati loolu la ko Safwaan digal ne loolu moo di plan xare bi <coughs> ñu toog foofu nag di xaar bi nga xamee ne toog nañ bee jant bi gengar ci ku nga xam ne digg bëccëg weesu na abu jahl ibnu hisham ñu yónnee ñëw ne ko ñëwal abu sufyaan raw na daw na jaar ci tefes gi ci la mer ba raw na kon jaratul ngay sonal sa bopp mu ne man ma takk xare génn ñépp di ma dégg ne takk naa xare may dellu déedéet fokk ma dem ba badar may fii kay foog may yendu fii ñu wàjjal ma yàpp gëlam jéebéer yi gune jigéen yi feccal ma ñu xalamal ma ma naan sàngara ñu xam ne man may sangu xur wi buru màkk moo génn loolu moom mënu la ñàkk moom mu ne dana ko def ñu reyal ko gëlam ya jéebéer ya di ko di ko di ko feccal mu naan sàngaraam sa di xaqtaay ñaari gune sàmm ñëw di ko laajte ay doomu jullit lañ ñëw daal di naan ko yàbbu jaal ñu ne xanaa xàmmewu leen ko mooy kële eh, gàngunaay ga di naan sàngara di xaqataay ñu daal di ne waaw ñu doxee ko gannaaw ki jógee ko kanam ñu fett ko kii jam ci xol bi ci kanam ki jam ci xol bi ci gannaaw ñu jamandoor ko rek ñu dàq xale yi rek ñu réer ci kaw xeer yi kenn gisatul leen léegi nag gaa yi ne kon xare bi jóg na kat xare bi jóg na ñépp ne bëreet nag ñoom jéemuñ ko simple fett gi jéemuñu ko sawee dañ ko wàcc foofu rek ku nekk tal boppam ñépp jóg jël seeni gànnaay nag ñu jëm ca xare ba yonent bi alayhi ma ngay sampale xare ba naan Alioune fii ngay taxaw Hamzatu ibnu Abdul Muttalib taxaw tabaxal taxawal fale ibnul Xaaris ibnu Abdul Muttalib mu ne ko yow fee ngay taxaw yu itam ba mu sampalee ba pare nag fekk naaj waa ngi tàng lool ñoom ña nga ca beeñ ba ca xurwa yéefar yaa ngi ci tunda wa léegi jullit ñi ku ci daw doo mën a daw ku mën a dellu gannaaw doo mën a àkk doo mën a dem ndax beeñ bi naaj bi tàng lool ñu sonn am ci jullit ñoo xam ne dañoo ragal ndax seen ni yefere ye bare yalla dal di wàcce ab taw comme ni ko alquran di waxe ci suratu alanfal yalla dal di taw taw bo xamne bu bare bare bare bare la ba taw ba ñewé toy seen yaram yi sedd beñ bi deugër jullit ñi man di daw di ak yefere ye nek ci kekk moom di Tarqis di daanu seen fasi ak gelam yek seen tank yi di daanu ku jog rek ne tare ne bepp ñom duñ mëna dem ñi nak ñu ci beñ bi mu deugër ñu mëna dem yalla dal di ak kóolute ci xoli jullit ñëpp ñu daal di ñeme ba ku ragaloon sax léegi yaa ngi ñeme bay gëmmentu yurashikum nuasa amanatan comme ni ko alquran waxee nam xaalisee ñëw ca kanam incha allah yonent bi nag daal di yëkkati ñaari loxoom ne naan yàlla ma nga naan allahuma anjiz ma waadtani yàlla la ma dëloon na ñëw yàlla lépp li ma diggoon tey na ñëw اللهم أنجز ما وعدتني اللهم إن تولك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض يلا li ma dëloon ci ndigal ci ci ndimbal yépp soxla naa ko tey yàlla mbooloo su tuuti sii suñu dee kon kenn du la jaamooti ci kaw suuf ndax ñii rekk nga fi am nag yàlla ma ngay wax loola di ñaan ba kaalam gi gàccoo woon dal di wadda baabaka ko jël delloo si ko ci loosam ne ko xaas bu ko ñaan gi doy ñaan gi doy aw fit moo koy mottali ak góorgóorlu yàlla sax nangul na la nag mu ne ko wax nga dëgg kay yàlla nangul na ma jibril la nga nale di ñëw ma ngi ànd ak junney malaaka asrafi la ngi ñëw mu ngi ànd ak junney malaaka azrail noonu ba muy ñetti junne loolooy salaasatu alaafin min al malaayika ci benn riwaaya ba ci benn aaya ba mu ne déeréet ñu ngay ñëw ñu nga ànd ak juróomi junney malaaka koo koy xamsatu alaaf ba mu wax ca kanam wala boog ma ngay ñëw moom jibril rek ànd ak junne malaaka fas wa jibril waroon moo tudd xay zoom saxaaba yi nee nañ di gisuñu jibril waaye danañ dégg léeg-léeg kuy xajju fasam naan uqdumi yaa xay zoom uqdumi yaa xay zoom ñu xam ne kon am na ku war fas wu tudd xay zoom moom la waykat bi naan qaala xay zoomu faqdumi lil qitaali ba ñu sampalee xare bi yonent bi ne عربة ابن ربيعة دنا فيدس شيبة ابن ربيعة دنا فيدس أبو جعل ابن هشام دنا فيدس نكنانو كبارو قرشي يب مرد لين فيني فيني فيني فيني دانو كنا من في ليتد في ليتد بنجك لواتو حمزة ابن عبد المطلب كأنه قريش للواتو مش شيبة آه، عدبة مرايكو علي بن ابن ابي طالب بن عبد المطلب شيبه بن ربيعه muray ko abdou haris ibnu abdul muttalib nag kam doon leewaatool kooku shahid loo ko kooku ci ahlul bayt yi wala ci banu hashim moo shahid ci xare badar juróom-ñaar ñoo shahid ci muhajirun juróom-ñaar ci lansaar muy fukk ak ñeent ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo shahid ci xare badar waaye terewut yéefare ñoom rey nañ ci juróom-ñaar fukk jàpp nañ ca juróom-ñaar fukk seen kàngam yépp rey nañ leen umayata keroog umayata bilaal a ko rey ndax moo moomoon bilaal daan ko mbugal mbugal yoo xam ne bu metti la ba Babacar jënd ko bilaal nag moom yore xeejam di war umayata rek ba gis ko ne ko kii du umayata mu ne ah kay kan la mu ne bilaal ibnu rabax mu ne kii bilaal la bilaal ne man la de tey day ma yóbbu la àllaaxira yow yaakaaroo woon mukk maag yow danañu daje danañu daje ci toolu xare ay ca jëlal sa ngànnaay ñu leewaatoo bilaal rey ko rey goo xam ne gu ñaaw a ñaaw ñaaw la moom moo rey moom moo rey umayata moom kooka rek la ca rey moom la doon seppi moom la doon wut ndax mbugal moom ko mbugaloon bi mu ko moomee <coughs> loola lenn la ci li nga xam ne moo xew ca eh, xare badar gannaaw ga nag loolu mooy atum ñaareel ma atum ñetteel ma moo di xareb xareb uxud quraysh daw nañ ba ñu dawee nag ba dellu dellu nañ ba ca ba ca yoon wa yonent bi ne dafa ñëw rek wàcc bëgg sangu jibril ñëw ne ko ah yéen nit ñi wàcc ngeen mu ne waaw mu ne yéen nag mu ne ah ñu ndey wàcc guñu nee nañ nañu dabi gaañi bu ñu leen dàq rek nañ leen nañ leen tiital loolooy badru suxra ñu dàqaat leen ñu daqaat leen gën leen a tiital ñu gën a ñu gën a sori ji atam ñetteel ma nag ci la ñu def xareb uxud xareb uxud itam ci jabal uxud lañ ko defee ndax dañu toog toog rek yéefar yi dal di ñëw ci jabal uxud ñu ne keroog ñetti junne yi doomu aadama xareb badar njunne rekk la woon ci yéefar waaye xareb uxud ñetti njunne ñoo ñëwoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag ñu bett ko bett boo xam ne bu doy waar la Mural daal dem ci abdullah ibn ubay ibn salul muy kilifa nafiqi yi ne ko lan nga xam ci mbir mi nak ndax dañ ñoo abdullah ibn ubay nak man li ma ci xam mooy buñ genn nan tok ci bir nan tok ci bir madina rek dégg nga jema jema jéem suñu mbedd yi waaye buñ genné fekki yéefar yi dañuy rey lolu moy pexé mu ñaawma mu ne su ko jigéen ñi di tangal ndox di len ko jël ci ñag yi non lañuy def rek waaye jarul génn xale lu góoru madina yi daal di ne déedéet ñun fekkee woon badar ñoo ngi ne woon ngéej xare am bañ fekkee ko benn ñu shahid dee fa ci ñu dee ci yoonu yàlla wala boog ñu defal yonent bi li mu bëgg waaye ñun kay xare rek la ñu bëgg amru ibnu abdul muttalib daal di ne may noonu laa ko gisee yonent bi sa alayhi wasallam nag bi mag ñi waxee ne buñ génn moom xalaatu mag ñi nit la koo xam ne lépp luñ ko jox ci pexe la gën a yombalay jël moo tax mu bëggoon a jàng ci pexe mag ñi ñàkk génn waaye euh, xale lu góor yi ne ko jeunes yi ne ko foog ñu génn dañuy xare ci duñ ñëw ba fii ba ci suñ buntu kër di xeex ak ñun ñu ragal di nekk ci biir dëkk bi loolu du sotti yonent bi ne man sax bii bu may nelaw gis naa ne sama mbubbi koŋ mi dafa mel ni mu ñoŋ la gis naa ne sama jaasi ji ñaw ji dafa damm gis naa aw nag wu ñu doon rendi gis naa itam am xar mu nekkoon ak man moo xar mi itam dee na loolu de gis naa ko ñu ne ko loolu nag lan nga koy tekkee mu ne jaasi ji dama moom kooku loolu mooy kenn ko ma fonk ci sama xeet ci sama alul bayti dana des ci xare bi nag wi ñuy rendi moo di ne mooy sama lenn ci sama saaba yi ñu des ci xare bu Uhud amma xar mi ñu rey nag mooy kilifa kili kilifa gi yéefér gu mag a mag a mag danañ ko rey ci xare bi loolu la sama gént gi di tekki ñu génn ba mu génnee yonent bi jiitu nag dal di sampale na abdullah ibnu rawaxata abdullah ibnu jubayr tax taxaw leen yeney rumaatu yi yene yore fett yi seen palaa xare mooy fettkat yi dañuy jonkon diirandoor ay fett bu yéefér yi ñëwee ba jege leen ñoom ñëpp ñu fett ndoor buñ fett ndoré dañuy daané lu bare bare bare bare. ndax bo fetal yi amut nonu lañ doon le rumati doon doon xaré mune yeen nak na ngeen nek ci suñu gënaaw né di ar suñu gënaaw ñun bu rayé bu len ñew bu ñun buñ rayé bu len ñew ndax ragal na ñu joggé ñu ci xam waxam nak ba yuñ ko xel waye lolu mo nar am ba mu sampalé xaré bi jox drapeau bi kum ko jox rek ñu ray ko ba ñu jox ko jaafar jaafar bi ko joxee drapeau bi mu téye ko loxo ndeyjooram ñu dagg loxo bi moom du daw mu téye ko càmmoñ bi ñu dagg ko mu daal di sëgg matt drapeau bi ak ak gémmiñam di rek jiitu ci kanam ne du dellu gannaaw mukk ñu cor bopp bi ñu moo loolu moo tax ñu ne jaafara tuyóor yonent bi ne kii duñ ko suul noonu la ko yàlla jëlee yóbbu aljanna mooy jaafara tuyóor loolu moo tax ñu koy askane loolu xamsatu ibn abdul muttalib mu ngi mel ni gaynde taxaw njool la woon mu am kattan bu taxawee sax day tolloog ñi war gëlëm yi ci kaw mu nga yore guntam di rey ci ndeyjoor ak di rey ci càmmoñ di rey ci ndey ñu naan xooleen waaj yi moom de mu ngi mel ni aljamalul abyad mu ngi mel ni gëlëm gu weex rek di falaxe kii kan la nga am benn waaye ne kii mooy Hamzatu ibnu Abdul Muttalib ndeke boobu fekk na Waxshi Waxshi benn jaam la woon bu nag bintu utbata hind hind bintu utbata keroog moom nee na rey nañu rey nañu utbatu ibnu rabiatu rey nañ shaybatu ibnu rabiatu rey nañu walid ibnu utbatu rey nañu baayam rey ñaari càmmiñam mu daal di hind nag mooy jabari abu sufyaan mu daal di ne képp koo xam ne te ñoo ñëpp xamsatu leen rey mu ne ku ma reyal xamsatu rek fayul ma ci xarib uxud bii wax si ne man day mën naa mën naa la koo reyal mu ne boo ma ko reyalee kon yow ma goreel la mu ne kon man du ma xeex loolu lay def moom mu yore guntam rek toog nag di xaar xamsatu ibn abdul muttalib radiallahu anhu xamsatoo ngi falaxe di ñëw bayu ko xel sax mu làqatu ko ba mu jege ko rek mu daal di ne buxeet daal di génn rek sànni ko benn gunt jam ko ci jumbax bi gunt bi daal di jàll ci diggante ñaari tànk yi radiallahu anhu mu daal di shahid daal di daanu hinda daal di ñëw daal di ne gaynde gi daanu na dagg ñaari nopp yi luqati bët yi dagg bakkan yi dagg ñaari tuñ yi daldi dagg dagg daldi xotti biir bi génne res wi daldi ko yey ba gémmiñ gi fuur mu ñëw da yonent bi tuf sa resu bàyyi ngoog xamoon nga ne dana fayu yonent bi ne sama xeet seen deret fu mu dem kooka texe na kii nga mu ngi koy wax lu metti lu naqari ki moom di ko wax lu neex looloy xikmatu ci hinda gis nga dafa mujj gis nga wax ci dafa mujj tuub ñoom ñëpp ñu nekk di ay julit waaye wax si ba mu tuubee itam ñëw madina yonent bi dana ko bul nekk madina ndax mënuma laa xool yow mi rey xamsatu daal sa samay gët mënut laa xool attanuma la mu dem dëkki feneen jooye jooy ba bëgg a dee waaye ndax moo boobu moom jaamu yéefar la woon te bëggoon naa gore waaye loolu mooy la nga xam ne moo mooy la metti la xew ci xarib Uhud ba loola xewee nag xamsatu daanu ñu def ko jëf jooju yonent bi ñu xaañ ko ci jëbi daal di ko gaañ ci oom bi dama benn bëñam bi jaalal ko dama benn bëñ bi mu daal di daanu ca ca genn kàmb iblis daal di jóg daldi di ne inna muhammad maqtuul muhammad deena muhammad deena ñu daal di ne kaaw téef musiba am na am ci jullit ñi ñoo xam ne ñoo gaaw ni ña ngay dem ca yónnee ca abdullah ibnu ubay ne ah mu jàppal ñu place ndax ñun li nekkoon ndeke daanaka du dara ndax Muhammad dee na kon lii ndeke du dara jëmul fenn loolu yëpp alquran a ngi koy tontu ci biir mooy rëng-rëng ba nga xam ne jotoon na julit ña sidna ali bin abi talib ibnu abdul muttalib saaba yi keroog dañoo daw xoddeeku ñoom ñépp dem xatta omar ibnul xataab laaj dañ ko ne ndax daw nga mu ne keroog kay maa dàq daw si kitab doj bu ñuy bérëng <coughs> ndax rey nañ Hamza ibn Abdul Muttalib rey kibaaru sahaba rey yonent bi ñu daal di kon jeex na ñu nit ku dawut day daal di dee loolu moo tax ñun ñëpp keroog dañoo dañoo dawoon ba yàlla di leen woo naan keroog de yéen a ngay daw yonent baa ngi leen di woo ci seen gannaaw istusiduuna wala taluuna ala ahadin wa rasulu yaduukum fi uxraakum yéen a ngay daw te kenn du geesooti yonent baa ngi leen di woo daal ne yëkkati leen ma ñu yëkkati ko alim ibn abi talib bokkoon nañu ko ci ñi doon yëkkati ak salim mbaa yàlla fata bañ ko yëkkatee fatimata dal di egsi ñu dal di raxas deret ji ji nga xam ne moom lañ ko xaañoon ci jëbi fiñ ko jamoon bañ ko raxasee <coughs> ulamaa yi ne ulamaa u sëre nee nañu dañuy yëg rek génn gëtt guy xeeñ gu nekk ci biir ñu ne kan mooy indi dar ko lañ bu xeeñ cib xare ndeke deret yonent bi moo doon génn moo waraloon loolu le ba ñu ko raxasee boo yeboo ne moo gën a tàng ci xare yëpp yëpp ci yenent bi moo ko Xunayn xanaa ndax sax tàng na ndax xare la boo xam ne keroog bi ñuy ñëw dafa metti metti goo xam ne yéefar ya nañu organisé ci wàllu ndeyjoor Xaalid bin Walid mooy moo fa nekkoon gaynde la gu ñëpp a xam Ikrimata doomu Abu Jahl mooy yore woon aile gauche ba ku ci nekk yaa ngi ànd ak ñaari téeméeri yi gawar Sufyaan ibnu Umayyata moom moo jiite woon borom fett ya mooy mu ngi ànd ak téeméer abdullah ibnu abi rabiata moo yore woon drapeau quraysh talaata ibnu abi talhata bokk ci banu abdudar ñii ñoo yoroon drapeau quraysh keroog hind jabaru abu sufyan mu ngi ànd ak jigéen ñi màkk yépp keroog dañuy xare ji indiwaale seen janq ji ak seen jabar yi ndax xam na ne duñ daw ci seen kanam jabar yi hind jiitu di way jigéen ñi topp ko naan nahnu banaatu tariq namshi ala namaariq in tuqbilu nuaaniq wa nafrushu namaariq ila axiri ñun ñooy nangam ak ci nangam ñooy jigéen ñu tedd ñi loola moo taxoon xare ba metti mënuñoo daw ba ñu demoon bay gañee gañee jullit ñi loolu nag la alquran di lii muy xare-xare yooyu le lay nettali foofu le ne su ko alquran waxutoon kuy sikk na ci sikk ci ay malaaka nu muy xeexee waaye jibril ma nga yore woon wenn fas wu tudd xay zoom ñi ko gisulit dañuy dégg léeg-léeg am na kaddu gën a uq du mi yaaxay zuum ñu xam ne kon am na ñeneen ñu nekkoon ci biir xare bi buur ne balaa kay in tasbiru su ngeen mu ñoon dey wata taqu ngeen ragal yàlla wayaatukum dikkal leen min fawrikum seen a gaaw haasa mu ngi nii yum ditkum dolli na leen rabbukum seen borom bi xamsati alaafin juróomi junni min al malaayika musawimin ñu xamal xare wa ma jaalahu llahu defut ko yàlla illa bushra lu may ngir bégal leen rek lakkum ñaan leen wali tatmainna ak dal qulubukum seeni xol bii ci malaaka yi waaye waman nasru deen ndimbal illa min indillahi damay bàyyi ko ci yàlla al aziz ku daa ji not ci kattanal xakimu ku daa ji xara la lu tax xare badar buur ne li yaqataa ngir mu dagg tarafan ab kuré tarafan ak wàll min allazina ci ñi nga xam ne kafaru am na benn kuré xam ne war nañu fa des ndax kéefir gi wàññeeku aw bitahum ñen nañu mu tital leen ba ñu wedem ba noppi mu alag leen fayan qalibu ñu mujj xaaibina di way perte yent bi ali salatu wassalam ba ñu demee bañam xaañ ko ci bje dagga om bi ba max ko ci kamba gi mu daanu ba pënd wuré ba ñu ko nak légui fatima ta ñew ñewon na bokkon na ci xare ba don may ndox ñi nga xamné ño daanu fatimata di sotti di raxas jam-jamu yonent bi ñu di ko faj yonent baa ngi naan kayfa yaflahu qawmun faalu haza bi nabiyihim gis nga loolu ñu naan boo tooñee diw mu alag la waaw ñoo ñuy alagaate ñi ko ci man xam naa bi yonent a koy dàq bu fekkoon am na koy mën a alagaate gis nga yonent bi tëkku na gaañ ne ne ñi day alku nañ xaw ma wii xeet nu ñuy texeeti nu ñuy demate na ñoom ñi def seen yonente nii yàlla ne déedéet demal aljana ak safara nak nekut ci loxo kuma ma yónni keneen nag min baabi ahra mu laysa lak ñeelul la min al amri ci mbiram al aljana moomu cheyun tus nak pour nga tok nak nan xaj nañ la nga nan ñi ñii ni ñuy texeetee loolu nak newut ci sa loxo aw yatubu alayhim wala yàlla di len nangul tuub xam nga bu loolu amuton kon khalid ibn walid bu tuubee yi yéefar lay doon ndax danaka la la jilit ñu ñak mo len ko tek kon wax sii bu tuubee du bax yonent bi nga xam ak nit dong la nekut yàlla وحشي بم توبه يتم نك تي دين جي ينتي داف نكو دال بول دك مدينه منوما لا منوما لا خول داخ نيمي ديفون حمزه لولا تخون نبي ا بو فيكون يالا واخو ني يونتي بي ليس لك من الامر شيء كون نيت رك لا موميت داي الك نيب ني ديم سفارا وا يالا نكو يوري ووكو او يتوب عليهم ني نانغول لين توب غناو سين تاي تاي جي او يعذبهم ولا يالا بوغال لين ndax fa innahum ñom dalimuna way togn lañ lool nak newut ci sa ولله نيل نيل ما في السماوات لي نيك تي اسمان وما في الارض لي نيك تي سوف يغفر يالله موي بال لمن يشاء نيل كوكو نيه ويعذب يالله موي بوغل من يشاء كوكو نيه كون كوي داو جمال تي يالله لا هو الله يالله غفور اجي بال لا يالله رحيم اجي يرم لا ا دم نين قرب بدر نين دوما يفريا ني دم قرب احد ني دوما لين ميرمي نون لا خير كاي تاي داغي غاني الله ني غاني yàlla ne xat ah, xalat wéy na min qablihikum li leen jiitu su ne sunanun ay sunna ak yoon am na ay aada ki baax yu ñu leen nettali ne amoon na bu yàgg loolu wéy na man ngeen ko jàng ci taarix ngeen xam ko ku ci jànguti di tukki fasiroo dox leen filaardi ci suuf fanzuroo ngeen seet dangeen ngeen kay kayfa kaana naka la nekkee aqibatul mukaddibin mu jëg ñi weddi ndax yéen a ngi dëkk fii fi mag bu ngeen tukkee dem Sham قوم عاد قوم صالح سمود قوم نوح يب سوري وين لين كون كوتي توكي دا نا جيس جيخيديا كون سيرو في الارض فاندرو كيف كان عاقبه المكذبين يالا ني هذا لي ماي واخ دي بيان اك ليرال رك لا لي ناس نيل نيت ني وهدن جبلا وموعظه وار للمتقين نيل ني رغال يال كون نك يين جوليت ولا تهينو بولين دايدي ولا تحزنوا بولين تيت نا وانتم يين كات الاعلونا yéen di way gën a kawe chartab in kuntum dem nekk ngeen muminin di way gëm yàlla in yamsaskum ndem laal na leen xarxun ay jam-jam ca xareb uxud xam leen ne faqad masa laaloon na alqawmu yéefar ya xarxun ay jam-jam misluhoo yu mel ni yi ci xareb badar tey dàq gi leen dàq ci uxud wa tilka al ayaamu fan yooyu ci xeex nu daawiluhaa dañ koy wëndeel tey nga dàq ëllëg ñu dàq la bay na naa si diggante nit ñi wala yaalam allahu ak dañu yàlla dafa bëgg a ci xeex yooyu la si ñi nga xam ne amanoo gëm nañ dëgg ak ñi weddi waaye taxis yàlla bëgg na jàpp ci yéen minkum shuhada xanaa bu ngeen jiyaare war na am ñu shahid yàlla fay leen xéwal gu màgg googu yowmal qiyam wallaahu yàlla nag laa yuxibu du fay abalimi na ñu tooñ benn bi mooy lu tax jiyaar di am ñu leen di dàq wala yu ma xeesalaa yàlla dafa bëgg xàmmee alladina ñi nga xam ne amanoo gëm nañ wayam xaqa bëgg naa gotti it alkaafiriin na yéefér ya léegi nag xareb uxud am nañu ko teewe woon ci baadu saxaaba yàlla euh, di ci yedd lan lañ defoon ndax yeneen bi alayhi salaatu wasalaam ci xareb uxud dañu dem ba yàgg rek ba iblis naawe ba tiim leen ne inna muhammadan qad kutil rangu julit ñi dafa dal di daar ñepp rek dal di daw yalla nak ne ah fokk ma yedd le ndax yeen bu ngeen duggé ci diini ja alquran di wacc man yalla jangal na leen ci bir alquran ne yonent bi nit la bes dana ñew du fi nek legi nak ngeen bëgg bu dé rek diina jeex motax mu ne am hasibtum ndax da ngeen jortu rek ne kon antat khulu da ngeen di dugg aljanata aljanna yàlla ja ci gépp jàppandal doo am benn métit wala maa laaw te xamut yàlla alazina ñi nga xam ne jihaadoo jihaar nañ minkum ci yéen wa yaalamate mu xam assaabirina ñi mën a muñ ci xare lu ngeen yaakaar yéen ku ci nekk ngi naan ni ñu yéefar yi bugalee bu yàlla santoon xare kon nangam ki nangam jihaar waqat kuntum nekkoon ngeen te ma naw na di mébét almawta dee min qabli balaa ñu leen koo digal min qabli antal talqahu balaa ngeen a dajeeg moom tey nag faqad raaytumuhu gis ngeen dee gi wa antum ci yéen tanzuruna yéen a ngi janoog moom te fekkee déew yonente bee tax ngeen bëgg a daw wa ma muhammadun nekkul muhammad illa rasulun lu may ab yonente rekk la xat xalat wéyoon na min qabli lu ko jiitu rusulu yonente yi te diina jàng fa desoon léegi nag afa in maata ndax bu dee rek aw qutila wala reef ko in qalabtum ngeen walbatiku ala aqabikum seen gannaaw wa man yanqalib ku walbatiku dellu ci kéefér ala aqibayhi ca gannaawam falan yadurallahu du mën a lor yàlla ci dellu ci kéefér shay'un tus te yàllaa ngi observé wa sayajzillahu dana fa yàlla shakirin ñu koy sant waaye ñee dañ leen mbugal mu leen di yedd ba tey ne xare kenn waru ko ragal jihaar bu ko kenn ragal nekkal ci li yàlla ndax mënoo fexe ba saw fan benn minute yokku ci mënoo fexe it ba benn bés wàññeeku ci kon nag defal li neex yàlla ak lim la sant rek ragal gi fu mu jóge Xaalid bin Walid ba mu feebaree bay bëgg a faatu dafa wax ne toskari ñeel na ku ragal jam nañ ma téeméeri yoon ci xare mësuma ceddee maa ngi nii dama nar a medd ci lal bi moo tax mu ne wa maa kaana nekkut yellul li nafsin ci benn bakkan anta moota muy dee illaa bi isnillaahi lu mooy ci ndigalal yàlla amul benn bakkan boo xam ne mën na dee lu ma yàllaa dogaloon ni fii lay dee te loolu may wax nag kitaaban téere la bu yàlla bindoon ci asal mu àjjaleen ñu digal ko ne bés sàngam la ci waxtu sàngam te du jaas ak ci béréb sàngam mënoo fexe ba jàdd loolu wa man yurit ku bëgg na ci yéen nag saaba duniya nga xam ne àddina rek ko yitteel nooti yi ko jox mi naa ci àddina tuuti ndax dina mu ci yàgg boppam moo yàggut wa man yurid ku bëgg na nag sawaabal ti yoolu alaxira nooti yi ko jox mi ca ca alaxira lu bari wasana jisi danañ fay nag achakirin ñu doon sant yàlla wa kaayin bari na mi min nabiyin ci yonent xaatala xeex na maa ànd ak moom ribbi yoon a mbooloo kattirin mu bari bari naa yonent yi jihaar ànd mbooloo te yonent yoy yef ma waxanoo doyadi wuñ won ak sen nit ña li ma asaabahum li len jot ci xéti métit fi sabilillah wa ma daufu ma suñoo doyadi wa ma stakaanoo ma toroxlul yéefér wallahu yàlla yuhibbu lana fay assaabirina way muñ ya wa ma kaana nekkut qawlahum seen wax illa an qalu ñom fuñu tollu di xex ñom xeet di jëk yoy dañu daan wax rek naan rabbana yàlla axfir yàlla na nga baal naa ñeel ñu dunoo mana suñuy bakkaar wa israafana ak suñu jéggi dayo fi amrina ci suñu mbir wa sabbit yan na nga saxal aqdaamana suñuy dëgg wansur naa nga dimbali ñu alal qawmi ci nit ñi alkaafiri ñu di way weddi ba waxee loolu fa aataahumullahu jox leen yàlla sawaaba duniyaa yoolu àddina ba mat sëkk wa xusna sawaabil axirati ak la rafet ca yoolu alaxira wallaahu yàlla yuhibbu dana faykat al muhsinina ñi nga xam ne ñoo rafetal seeni jëf na lool waaye jógagul ci xareb Uhud xareb Uhud ba mu tàngee bañ daaneel yonent bi rey Hamza toog Musab ibnu Umayr Hind ñëw dagg bakkan eh, bakkanab Hamzatu luqati bët yi dagg napp yi dagg tuñ yi xotti eh, xol bi génne rees wi yéy ko buusu ko yonent bi ne sa reesu bàyyi ngoog gaa ñu ne àddina tukki na lislaam jeex na ba nga xamee ne loolu xew na nag am na ndeysaan ay julit yu naan kan mooy ñëw ma yónni ko ci Abdullah ibn Ubay magu naa fekk ya weddi woon mu jëlal ma place ndax moom xaritu Quraysh la mu jëlal ma place ci Abu Sufyaan ndax fi yàqu na sama borom ne yaa yoon li dinaa mënu yéen gaa ñi gëm alquran in tutiu bu ngeen toppee la jëna ñi nga xam ne kafaro weddi nañ dey yaruddukum danañ delloo leen ala aqabikum seen gannaaw fa tanqalibu ngeen walbatiku xaasirina di way perte ballu fi nekk allahu yàlla mawlaahum mooy aji méngoo seen mbir waxu yàlla nag xayru naasirin mooy ngeen jikkoy dimbale na ngeen muñ te xam ne sa sanulqii danañu sànni fi qulubi na ci xoli ñi nga xam ne kafaru weddi nañ ruux ba ay ragal bi ma ashraku ngir li ñu bokkaale bi laay ci yàlla maa loo xam ne la lam yunazil wàcceewut bi ci moom sultaanan wenn lay umaawam seen tapp waay naaru mooy safara wa bi sa bon na maswa zalimin sax waay ñi nga xam ne ñooy nekk di way tooñ li leen dal dal ci xarib metti na waaye lu ko waral yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu ñibbisee ba Medina nag ñi def nag seen réunion critique di seet li yàqu ña dee nañu ñi jam jamal nañ jam nañ leen ah foofa nag am na ay jullit yu ñëw nekk ko yonent bi ñun jaaxle na nu li nu li nu dal num nu dalee te nun noo ànd ak yàlla ànd ak yàlla yónni lu tax li dal nu ni ngay commencé sik dal sen ya yalla nak dal di tontul yonent bi ne da ngeen na setlu xare badar la len la la la ya fu mu leen dale xanaa ngeen a ne bis bu nek rek yeney duma te itam li tax ñu duma len ci yeen la ndax ye sen sen iman mo deson te yonent bi neena na te ngeen bëggoon alal ak adina yonent bi ne na woon yéen ñi ci seen suñ gannaaw bu leen ñëw ñu tàmbalee dàq yéefar yi rek ngeen mbir ma sotti na ñu ngay séddoo ngeen bàyyi ca gannaaw gaa yi jóge leen gannaaw nag gaw leen ak ndoom moo tax alquran ne wala qad sadaqakum dëggal na leen laaw yàlla waadahu dëlam de yàlla de li mu waxoon def na ko nee na woon su ngeen muñee daal kenn nit ku nekk mën naa xeex ak ñaari yéefar dafa njëkkoon wax ci leen fàll ne kenn ku ne dana xeex ak fukki yéefar mu xam ne am na ci yéen ñoomut iman mu ne kenn ku nekkoon ñaar ولقد صدقكم دغلنا لن الله يلا وعدو دولم نجينا فاتي استحسنهم بغير لين دري تي قرب بدر باذنه تي ندغال ندغال يال في نك دا نجينا ديم حتى اذا فشلتم بغينا ام اشك وتنازعتم نجين قتشو في الامر تي ندغال لي قرب خسي امنا كين رك يديغال ني دي تي توب يونت يعني بي ني بولين جوك في ام كنا نان ديم نانغام خيونا وتنازعتم في الامر ميب مير مو ني سونغو bu direction yi bëree ak ndigal yi rek échec dal di ñëw waa saytum ngeen mooy min baadi ma araakum gannaaw bon bañ wan leen maa tuxiboona li ngeen doon bëgg mooy alal ngeen seen rek dal di ne mbir mi jeex na min kum nekk na ci yéen dëgg nag man yuridu ku bëgg dunyaa dina dong wa min kum nekk na ci yéen it man yuridu ku bëgg na alaaxira waaye su ma sarafakum topp soppi leen anhum ca ñoom li yëpp taliyakum ngir mu nattu leen ba tax ngeen ànd ak yàlla ne loolu yépp nag li ci gën a gàtt mooy wala qad afa baal na yàlla ankum ci yéen laahu yàlla ci lool ndax wallahu zo fadlin borom ngeen la alal alamin ci borom bindee fi waaye daw ngeen istusiduuna ba ngeen di daw ba ngeen di daw di yéeg wala taluwoona te du ngeen geesoo ala ahadin ci kenn wa rasulu te yonent bi yadcuukum ma ngi woo leen fi uxraakum ci seen gannaaw fa asaabakum mu fay leen xamman jàqare bi xammin ci jàqare li kay laa taxsanoo ngir bu leen jàq nag yàlla dafa bañ ngeen tiit ala ma faatakum ci li leen xas faat ñu xas deeg la ngeen ñàkk fàtti leen wala ma asabakum bu leen tiit ci li leen jot ndax wallahu yàlla xabirun ku dañ kumpa la bi ma taamaloon ci la da ngeen def ko su ma anzala topp wàccee yàlla aleykum ci yéen min baadil xammi gannaaw jàqare ja amanatan kóolute nu aasan ay nelaw yaxsha di muuru taayifatan kuré minkum ci yéen ca xareb badar wa taayifatan benn kuré ba xad ahamadum yitte na leen anfusum seen bopp ngir tiit ndax ki ñeme bay nelaw ñeme na waaye ki nga xam ne boppam rek ko yitteel tiit na wa taifatun qad ahammathum anfusuhum yazunnuuna ña ngay joortu bi laay ceel xeeral xaq la dul dëgg lu mooy lan joortu ne yàlla dina bàyyi yonentam ak diineem bañ di ko toroxal loolu lañ joortu kon nag yazunnuuna bi laay xeeral xaq zanal jaahiliyat loolu mooy njortal ñi réer ñen ñi dem ba naan kan moy ñew nu yónni ko ca diw yaquluna ñi nga naan hal lana min al amri shay'un mo ñun ndax deug gi mom amati nañ ci dara mo ndax ñun gañi xare mom amati nañ ci dara hal lana min al amri shay ndax ñeal nañu dara ci mbir mi kul waxal ne in al amra naka mbir muy gañe ak ñu dàq la kullahu lepp li lay ñel na yalla yalla ne bobu nga fi siim ci sen bop mala laa luñ bu fekkoon ne téere bi ak nit a ko bind li kenn du ko wax sa bopp di ko wax say saxaaba ak ñi ak yow waaye yàllaa koy wax yaquluuna ña nga naan law kaana donte ñeeloon nañu la naa ñeel ñu minal amri ci mbiram gañe ak yonent ak dëgg cheyun dara day maa xutil naa kon reyee suñu awu naa fii xul tontul ne gis nga dee mbir mi ak dëgg gi mu ngi ci yéen waaye loolu du tere dee law kuntum su ngeen nekkoon fii buyootikum ci seen néeg ya tëdd fa la barasa génn la si nga xam ne ba bindeef na alayhim ci ñoom alqatlu ñu war leen rey ila madajiim seen tëdduwaay ku tëddoon ci sa néeg bu dee jotee dee nga fekk la fa wala bu ñu di rey danga nga fekk sax diw moomu mu rey la nee nañu wala maaw séeréer nee nañu jamonoy Suleymaan dafa mel ni nit bu daan dee malaaka day ñëw ne ko dañ maa yebal ma jël si sa ruuxu benn waaye nag gis lu mu ragal ñëw ne Suleymaan waxal ngelaw yi nañ ma yóbbu ndax gis naa ay malaaka di ma tiital ragal naa dañ may rey si dama ngelaw yi dewee ndax buñ jël see duñ ma fekk mu ne ngelaw yi daal di yenu waaja waaja dema dema dema dema dem ba fa mu soxla woon ñu koy cëppil mu ne bañ ne ko cëpp rek fekk malaaka maa ngi jékki di ko xaar mu daal di ko ree mu ne ko looy re malaaka bi ne ko lu may ree man yàlla ne naa la rey te fokk naa la reyee fii ma ñëw fekk la fu sori ma ne ah naa topp ndigalal yàlla rek dem fi ñu ma waxoon ma yëg si rek nga yëg si kii dinaa ree kon ndeke fu ngeen mënoon a nekkit bu dégg ñëwee fekk leen la wukkuntu fii buyootikum la baraza alladina kutiba alayhim alqatlu ila madajihim wala yabtaliya allahu ak na nattu yàlla maa fi sudurikum li nekk seen seen dënn yi mooy xol yi fokk yàlla seet ko ndax dëggu ngeen walla yu ma xisa fokk mu xàmmee leeral maa fi qulubikum li nekk ci seen xol yi wallahu yàlla alimun aji xam la bi daatu sudur yi li nekk ci dënn yi inna ladina naka ña nga xam ne te wàllaw daw nañu dëddu nañ joxe nañ gannaaw minkum ci yéen yow maltaqa bis ba daja aljamaani ñaari mboolo ya ñooñu la dawoon dey innama stazallahum naka tarqiis loo na seen ab dëggu kan cheytaan tarqiis nañ ba bay yoonu dëgg bi baadi ma kasab waaye nag duwut cheytaane kese lenn ci liñ faggu ci ay bakkaar moo leen yóbbu ci ñu mën a ànd ak cheytaane loolu bi baadi ma kasabu gis nga bi baadi ma kasabu duwul ne sax liñ faggu yëpp lenn ci seeni bon bon rekk leen ko yóbboo duwul sax yëpp yi ci des yàlla bana ko wa laqad afa allahu baal na yàlla ankum ci yéen julit ñi erreur yi ngeen def ci xareb Uhud inna laa ndax yàlla moom xafurun aji bale la mu yàlla xalimun aj lewet la mu ñëw nag ci ab julit ni mu war a joxe boppam def li ñu naan tadxiya mooy joxe sa bopp ngir yàlla bu fekkee julit ñaa ngi yéefari ñaa ngi ñu ngi jihaar ab julit da caa war a joxe boppam te itam yéeféer yooyu nga xam ne dañ naan bu ñu demee jihaar dee ci ñu naan ah dafa sob su toogoon fii du dee alquran ne leen boo toogoon it dee ñëw ndax yéen ñi demut it da ngeen dee mu ne yaa ayyuha alladina amanu yéen gaa ñi gëm alquran laa takunu waaye bu leen nekk ka alladina naka ñi nga xam ne rek kafaroo weddi nañ wa ñu wax li ixwaanim ñeel seen i bokk isa darabo bu ñu tukkee fi laardi ci suuf aw kaana wala ñu nekk xuusan di way buñ fa déssé mu ne dañoo sob ndax law kaano buñ nekkoon de yi indi naa fi ñun maamaatoo du ñu dee uma qutiloo reyeefu leen léegi àlallahu dana def yàlla zalika loolu xasratan muy réccu rek fii xuloo bim mu seen xol yi wallaahu ndax yàlla ci boppam yox yi mooy dundal ku ko neex ba bu dégg ñëwee mu tëb ko ba waxtu wa jot wa yumitu mooy rey bu jotee wallahu yàlla moomu basurun ku xam la bi ma taamaloon ci la dañ def ko bur ne wala yéen xutiltum ndeem rayef na leen yéen ñi gëm yàlla fi sa billaay ci yoonu yàlla aw muttum wala ngeen dee rek dee goo xam ne dugu dañ leen a rey waaye comme yéen ci li neex yàlla la maxfiratun njëggal ba ngeen di am mi ne lay bàyyeeku ci yàlla wa rahmatun ak yërmande xayrun moo gën fuuf mimma ci li nga xam ne yejmaun danañu toog fii di làqatu jihaar ak dee di ko boole lee moo ko gën te it nag wala it muttum bu ngeen woon dee naturel aw qutiltum wala reef leen ci yoonu yàlla boo it kenn du raw ki dee ci li neex yàlla li neexut yàlla yéen ñëpp la tuxsharuun def na fanga leen ila laay ngeen jëm ci yàlla ku ne ñu fay ko li mu doon def léegi nag ma ngi dellu ci yonent bi ne nag yéen sahaaba yi li leen dal xarib uxut ci yéen la jóge ndax yéen a wuuteeg ndigalal yonent bi yéen a bañ a topp li ñu leen rëddaloon mu ñëw nag di wane ne yonent bi nag moom day moom njiit la waaye nag ku mën njiit la ku mat ku mën njiit la ndax xol ba xatul jikko ja rafet na te du mer te dafay bale te balaa def diisoog yéen kon mën na njiit كون يني ينا متتن وي تبي موتا ني داقلين موتا بو نفا بما رحمتين سبب سي يرماندي من لاي بايكو تي يالا موتا يونتي بي لينتا nga نوي لهم تي نيوم خم nga ولو كنت بو نيكون فضن دي اجي نياو جيكو غليظ القلب دي اجي قيس جيب قل لن فضو فكنا مولا متسارو من حولك فين لور كندو كندو لور كون نك واي فافو بال انم تي نيوم